dal leen ak jàmm autorité municipale yi nekk Tiwaawoon am seen yéene yaatal carte sanitaire bu mewaan nee nañu seen xemmemteef moo di taxawal lu ñu tuddee santé de proximité moo tax seen yéene moo di tabax ay case de santé ci village yu bëri ak it sanc benn centre de santé foofe ca mewaan ngir wàññi li mu malade yi nga xam ne lu bëri dañu leen di euh, yebal ci yeneen i bërëbu fajukaay Babacar Sow. fexe ba yaatal màkkaan yi nga xamee ni foofu la ñuy fajoo ci commune bu mewaan ca département bu Tiwaawoon ndogal yi ci wàllu mairie bi ni daal daañu jëmal ay case de santé ci dëkk dëkkaan yi délégation mairie bi soloon na dàllam ne mekku ji lenn ci makkaan yi nga xamee ni ñooy toppatoo wàllu waa kër docteur taxaw ca ndëkku di dëkk boo xam ne bi soxna si réewle taxaw na waaye tam jumtuwaay yi yemb na ñu déglu ci Cheikh Sall jaraafu dëkkub mais waan biñ ñëwee gis nañ dëkk yu sori ay sinu Moussa très éloigné très enclavé ñu dem defar leen seen benn case de santé bu yóbbale leen pour que ñu mën di def les premiers soins ñu wutal leen euh, fajikuwaay mais aussi ñu wutal leen ambulance yoo xamante ni bi en cas a jël ñooñu de santé Mewane bi réhabilité nañ ko te ñu continuer réhabilité yeneen yi tey jii jaar nañ de santé ndëkku bi crois que suupa mu ubbi parce que matériel baak sage-femme bi ak yooyu yëpp sont sur place lenn dong tax a jóg mairie Mewane moo di amal ab l'hôpital ci gox bi ngir moytu ñuy yóbbu askan wi wi seen yaram sutante ca mexe wala ca diwaanu Pire waaye itam fépp foo xam ne fii am na ñu fa yeewoo ci gox goxaan bi nga am foo fajoo Cheikh Sall wolof dañi bu soxla dee ñaar da ngaa téye wér gu yaram maanaam ku wérul ñu la tegal da ngay téye wér ba pare ni léegi nag soo lijjanti leneen donc nit ki bu wérul du julli nit ki bu wérul du lekk nit bu wérul du liggéey donc lépp loo xamante ne mi nitam koy sàkku wér yaram ci war a jiitu moo tax aussi ñuy jiital wér gu yaram ci sunuy action dinañ continuer ay dëkk yu bare bari gis nañu ni soxla nañu loolu parce meewaan dafa yaatu yaatu lool la fa dëkk ci ay nit ëpp na cent mille ci waxuma mewaan boo génnee Tivaouane tuuti romb Pire ba côté côté Lompul jël frange côtière bi te muy loo xamante ni bii fu naqaree dem. Tivaouane Babacar Sow doon ci jokkoo ko kenn fii ci ndëkku pour Sud FM. jërëjëf Babacar Sow organisation mondiale de la santé publié na ab liste modèle boo xam ne dafa soxal ab dispositif de diagnostic in ngir jàppale réew yi ñu choisir seen jumtukaay ngir amal fësal gulet ñetti test diagnostic soxal virus hépatite E ak i test rapide boo xam ne dafay yombal diagnostic ak surveillance su infection bi nga xam ne virus hépatite E moo koy joxe mu yokk ci ay tegtal yu aju ci feebaru jabet bëgg ñu yokk jumtukaay yi nga xam ne ñi feebar bi dal dinañu ko mën a jëfandikoo ngir natal seen bopp seen suukar mbokk déglukat yi fii la ñu yem ak yéen ñu doog jàmm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 Bonjour chers auditeurs. Élargissement de la carte sanitaire de Mewan à Tivaouane, les autorités municipales optent pour la santé de proximité, des cases de santé dans plusieurs villages avec en vue un centre de santé pour diminuer les réfèrements Babacar Sow. Élargissement de la carte sanitaire de la commune de Mewan dans le département de Tivaouane, les autorités municipales optent pour l'érection de cases de santé dans plusieurs villages de la localité. Une délégation de la mairie coup où la case de santé est en voie de fonctionnalité avec déjà la disponibilité de la sage-femme et du matériel adéquat. Cheikh Sall, le maire de Mewan, s'en explique. crois qu'il faudra élargir la carte sanitaire pour permettre à tout le monde d'avoir la chance de se soigner en cas de maladie. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes, attelés à faire. Nous allons ouvrir la case de santé de Ndoku. Nous avons déjà construit des cases de santé, la case Sinou Moussa Abdou qui sera bientôt opérationnel. Donc tout ça grâce à nos moyens propres, de la commune. Nous allons élargir tant que possible la carte sanitaire. Objectif de la mairie de Mewan, construire un centre de santé et assurer le maillage sanitaire dans la localité Chersal. Notre objectif est même d'avoir un centre de santé au niveau de la commune pour éviter de référer autant que possible nos populations vers Ngaïmere ou pire. La première préoccupation,

3 des dispositifs de diagnostic in vitro, essentiels pour ainsi aider les pays à choisir les outils de diagnostic qui seront utilisés au niveau national. Dans la liste de cette année figurent pour la première fois trois tests de diagnostic du virus de l'hépatite E, y compris un test rapide pour faciliter le diagnostic et la surveillance de l'infection par le virus de l'hépatite E et des conseils visant à inclure parallèlement aux recommandations médicales de mesure de